Gabon Production ak Darou TV les dans les besoins de la population sénégalaise. wajjantu kulliya bihamdin wa shukur ila wali Aziz

إلى النبي قل صلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم وسجد سؤالي sëñ Abdou Salam de moom waxtaan ci yomb na lool ci lu rafet lu rafet rek la fi nekkee ba ni mu fi jóge di jaamu yàlla di liggéey topp ndigalul kilifaam ñun ñi mu bokkal ndey ak ñim bokkal baay ñëpp la amoon seen yërmande di leen dimbali dëgg dëkk bu sanc def na fa dëkk bu sanc bu ne def na fa kër gum am def na fa jàkk ci lu la ne ba xëy wuy ji borom jàkk ji bu fi newoon ba nag ubbi nañ ko waaye sëñ Modou mi fi bàyyi it ku baax la nag ku mën a dalal sun xel man day Salaam ndax Modou Mbacke ak doomam maa ngi ñaan sa borom bàyyi leen fi rek te may leen wér diggam ak bokk it yëpp a rafet diggam ak i bokkam ñëpp a rafet lu baax rekk la séq ñoom ba ni fi jóge waaw bëggi bokkam bëggi borom Tuuba nangoo liggéey laa biir waaw daal moom moo doon jukkoom ba ni fi jóge waaw ñu ma déggee ne ñu ngi julli jumaa ji sama xol dafa sedd lool sax lool tey kay moom sama xol bi sedd na lool ndax tey jii la yéeneem egg tey jii la yéeneem egg yal na nu yàlla taas ci barke bi barke borom Touba baax nay waajur lool nag wax na bu sa moom kenn la woon moom la borom Touba woo ba mu ñëw mën a ko yaay sëriñ Touba Mbousso bi xam naa lépp mooma waaye am na doom ju baax sëñ Abdou Salaam ku baax la ku rafetu baax yi baax na lool jërëjëf yàlla na koy yàlla na ci barke. Gabon Production Académie Médine TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.